sasune wane bobam wane ni mumane dukuchini akina sama shoko bane jox na la sama khol shoko bane yow da ngay yaakaar ne sa kër nga nekk ba lu la neex def et puis sax sa affaire caga yi mooy lan. eh Nanita c'est pas comme ça du nii la ñuy waxee ak nit. eh gis nga fii sama kër la. defe bi yaa yónnee Afro sama kër mu ñëw di ma xoj di ma menacé. ak yow da nga gis ne man Dave moo yoon yónni loolu nga gis. xaw ma ci dara laa la wax. yow nga foog ne man dofe naa man noonu man di yónnee Afro. dama ne la woon nga dem fa waxtaan ak moom. xam nga bu beneen yoon tey bu fekkee dama koy defaat dama koy defaat parce que Thiané li mu nekkee yéen ko ci bàyyi mais na la bàyyi. ah yow loolu nga gis ne daal moom moo mën a faj pro mais du noonu du noonu man soo ma teewoon expliqué dinaa la wax ne bul doxalee noonu fii xamal la d'accord mais yow xam nga jikkoy booy bi xam nga ne bu baax a baax a baax booy bi bis bu bis bu démarré ci man. yow xam nga sax man sama problème nim fay démé baxna baxna amul problème amul problème non nga ko gissé amul problème. xam nga ni merlo nga boy bi té ki bu da fay capable mën na yàq sax sama relation man ak. man ak mezzo mais yow man ban intérêt la am man di man di yak sa diggante ak mezzo xol ma lay rappelé li nga bëgg ma def ko xam nga ni duma ko def xalaatuma ko sax ok ci kanam Oke, ok d'accord. kii dafa dof wala lan Sofia xam nga lu ma lay yëgal yëgalu la sax de dama lay exiger gis nga sa tolin gu bon gi ngay def ci kër gi laa bëgg mu dagg te xam ne fii liggéey moo la fi dama fee nekk ak sama jëkkër dama bëgg nag ngay xool ni ngay sole gis nga bu ko sama jëkkër nangoo man nanguwuma ko j'espère que dégg nga ma. kan moo bëgg a sa relation ak Medzo. si que ne xam nga ne li nga ma doon wax ci afro lépp dëgg la kii du nit ku baax. doonul nit koo xamante ne ñun ku ñu war a àndal la tey laa koy soogay gëm vu que ni moom nekkul ci mariage ci affaire da ut gel tey bu suba mu ut gel gannaaw suba utaat lii utaat lële ci loolu noonu la nekk moo tax mu yaakaar ne ku mu gis rek ci la la war a dugal diggante Medzo ak nanitaa gis nga seen diggante ñoom ñaar di mel vu que ni neexul ok mu ne mën naa dugg si diggante bi pour jéem a yàq seen relation ñoom ñaar pour divorce mën a am. ndax ñun ñu mëna am jamm di blow di def lu ñu neex té loolu duma ko ci mësa a fekk ci ndax afro du nit ku baax tay du nit ku baax suba té ñun buñ dé and dañu wara and ak ku baax ndax dañu wara sam suñu der bu baaxa a baax a man tay imaginal ma yaq digënté nanita ak mezzo suba ñom ñaar ñu andat ma lay wax non mezzo moy goru bopam moy responsable bopam seen digënté ñom ñaar bu démé ba wara mom xam nako da fay jeex bu waree continuer mom xam nako da fay continuer té sama der du ci ñaaw. gis nga man xam nga lu ma ak yow liggéeyal la fin du mois jot nga jox ma sama xaaliss ma dem kanta nak sama ak sama comportement ci kër gi ça te concerne absolument pas wow wala nga yaakaar ni. dama bokk ci jànk yooyu ñuy exiger sër t-shirt ak fiiju non non gis nga sama liberté nit du ko xam te su dee sa jëkkër li may da koy xool di ci yëg boppam parce parce qu'il est faible mais pas man ak wala yow da ngaa gisul sa bop yow gis nga li nga sol la neex ngay sol ci kër gi ah yow ya dal tuddu sama faiblesse jëkkër mo la dese waxuma ngay wax ci sama sol yi yow ya da nga faté ni fi sama kër la té man damay sëy maag sama jëkër ñoo fi nekk en tout cas daal bébé man xam nga lan la lay conseil nga génn ci parce que

dem jëli ko lii des na ci topp yow nag fa ma mujjee ak yow foofu la gis nga li ngay manigancé Medzo mënu koo gis man maa ko mën a gis te jàppal ne fa nga koy fa nga koy tibbee man fa faranku laay toog di la xaar dara duma bett ci yow te li may wax moom ngay def par ci sama biir ni ma neexee xam nga yow sama solin moo la ñor waaye man dafa am leneen lu may lijjanti saay bu may sangu damay sentir nit di ma yërndu yërndu waaw te jigéen amul lu dul cëram te kër gi kenn raxuñu man maa fi nekk yow ak sa jëkkër lijjanti loolu ma toll ci yow yaakaar naa ni tollu nga fu ko raw ay sama jàmbaar jolli suñu diggante ay wax bi ci bëri mandat bi benn la dootuñu dolli eh Baye Fall eh ani fi yow sa waay xar nga fi fekk wala bëy wala ginaar eh mais noo ko jàppee muy noonu kon jeex na et puis yow nga nappeeku nii mel ne kuy jaay lu lamb lanu féew nga. sa waay li nga fiy def def. ok baax Aïda dama bëgg ñu waxtaan lu sérieux nga wax ma dëgg rek te yàlla tax bu ma fen wax ma dëgg buy metti sax ma supporté ko moo ma gënal Medzo bon bi daf ma ne da doon sangu am ku ko doon yërnu te góor la kër gi man maa fi nekk yow ak moom mais yow da ko doon yoon. Eh. Fio eh. Fio kii salon la mais yow affaire caga yi mooy lan yow damay génn balaa ma ñëw après nga entrer ku la neex ah Fio ku baax. lan la. kii sama cousine la. gis na saawaay yar lu la mayul du la xagn nan nga meuna fekke nit ku tok xamo mom kan la xana li gëna a jekk mooy nga ne ko nga nuyu ko fiyo je pense que ki nga ma don wax Nanita na njëkk tay na mujj tay nga may wax sa genre wax yi man duma sa doom raam boo xam ne danga ko teg ci kër gi lu la neex wax ko ndox mu tilim bu ne nga tuur ko lépp loo xam ne soxlaa toog nga xëpp ko ko du ma ko nangu eh man feebulu ma tal naa leneen lu dul ay yéendu yow lan moo la daal yow am na loo xam ne sax boo doon dox ci mbedd mi nit woo la wax la ko waroo ko bàyyi xel parce que amul dara lu ma la mës a nëbb sama dund mais yow des fois da ngay jékki-jékki mel ni ku ñu formaté defaat la defaat ci yow beneen mémoire lan moo la dal bul ma waxati sa genre wax ji ok. yaa ngi mer de defoo ko loolu tëb di dal lan moo ci jeex mer ba yuuxu li mu wax dafa leer te gis nga wax bu dofee nopp ya koy dégloo jarawal limwa dan dane ma carrément day sangu am ku koy oke, ok ok nanita ok lepp dina leer Safia naam da nga don sangu ci keur gi am ku lay man ku la wax loolu mako ko wax ya ma wax ma ko man waxuma la loolu de Sofia nga ne yow waxoo ma gis mën naa laa muñal lu nekk accepter la lu ne sa wax ju ñaaw sis yi ngi may sis ci kër gi ba sa jëkkër bu génnee yi ngi def ci kër gi yëpp mën naa la ko accepter des fois di ma wax loo xamante ni nii damay rus sax jàkkaarloog sa jëkkër di ko ko wax mais bii moom dafa ëpp musuma nangu ku may sosal sama àdduna te du tey laa koy commencé Sophia nga ne waxoo loolu ok Sofia demal léegi Rousseau ana lan moo la jaral lii Nanita bëgg naa nga changer bu baax lu ko mooy gis nga ci li may woo dinaa la ci fekk si ba mu mat sëkk yaa ngi may dégg